thank you rahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka nahbudu wa iyyaka nastain ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina alhamta alayhim xayril maxduubi alayhim wala daalin bismillah bismillahi mina seytaan rajim ñu ngi sant bu baax bu baax a baax yàlla buru tedd bi nga moom moom ñëpp di sant bu baax di dolli di sant bu baax di ñaan si saydi awalina wa axirina démb ak tey seydina imaamal mahdi yu muntasar di wax ni yàlla nañu ko yàlla fayal bàyyi laay alayhi salaam yàlla nañu ko yàlla fayal Cherif Mansour Laay Gaye ibnu seydina Abdoulaye Thiaw ibnu seydina Isaa ibnu seydina imaamal mahdi yu mu nekkoon kenn si ñun si ñenn ñi ay doom ñi ay mag ñi ay rakk yàlla boole woon man ma nekk papaam bu wér nekkatim sangam ndax waajuram bu góor nijaay la ci man muy Chérif Abdoulaye muy fii suñu ëtt quartier Kayor ëtt bi nga xam ni mag ñi ñoo ko fande woon muy sama pap Mor Gueye ànd ak rakam njagaja ñu ànd si ëtt bi ba tey lu ñu man ñoom la ak ba ñi nga xam ne ñoo toppoon si ginnaawam muy El Hadj Baye Seydi Lo nekkoon fi imam Baye Ousmane Gueye Baye Ablaye Ndieng Baye Mbaye ba Baye Cheikh. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Cambérène maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen di ziar di leen jox sa wàccuwaay siin bi de sama siin la siin Mansour sama siin la moom parce man bi ma ñëwee fi ba léegi macha allah taxaw na ma côté bu ne taxaw na ma côté bu ne siim bi waaye maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar fii lu ma am fi soxla rek si siim bi ma demee ba si moom bu wax ko ko rek dina fi taxaw taxawaay bu rafet la siy taxaw. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant Mansour moom. bu ngeen bëggee ñu wax ci dinañ ci sawar ndax Mansour fii la yaroo suñu doom yépp ay moroomam lañu Mansour baax du weesu yaa baax mais Mansour baax na yaatu na Mansour du def daray gis leen ma Mansour dina la defal loo xam ni bëggul sax loxo càmmoñam bi yëg ko bu la ko defalee nit ki nag na wax loo xamante ni su dee du la yóbbu ndax boo tolloo ba am yenn at yi wax dëgg rek moo la war Mansoor ku baax la ku yaatu la Mansoor ni mu def suñu njaboot rekk moo ñu gën a neex moo ñu gën a neex Mansoor sama doom jooju gaañu sëy naa gay da ko joxoon léppam da ko joxoon léppam bu ma sonn fii am cardiaque sonn danaan yaay dawal woon ma Mansoor mu ñu bu ma ko woowee dama kanaan man soo dafa sonn mais Mansour musul tàyyi. waaw sàngar bi moom wax ci man avec plaisir mën naa cee wax oui dëgg dëgg avec plaisir mën naa cee wax waaw. dund nañ lu mag. dëgg ko quoi dëgg waaw mu yéema ci àdduna defal ma lu ne ci àdduna nag boobu moom daf ma yokk fit sax ma mën a ànd ak nit ku ne ndax ku nekk chaque jour li mu doon conseil mooy ku nekk la ngay àndal moom la ku nekk la muy dund moom la maa ngi moom si nekk chaque jour mu may wax loolu mu am fitu nag ànd ak man fu ne ma am fitu nag man tamit ànd ak moom fu ne mu yee ma sama àdduna mu yee ma daf ma yee lu bari lu bari lu bari lu bari ci bëgg yaay ci bëgg rakk ci nooy gérer say rakk yàlla def muy taaw may taaw chaque jour ñuy nekk man ak moom. asalaamaaleykum waa kër Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam wàccee ko ci yont yàlla Isa mi meññ uh, wayjuru Serigne Mansoor maa ngi leen siyaar laay Mamadou Mokhtar. laay laay laay Mamadou Makhtar laay Saliou a ah, def ngeen lu rafet a rafet a rafet a rafet a naa ci kontaan naa ci itam ndax alaaji bu ñëwee def lii wàccul yoon ndax lu tax wàccul yoon bi moog man soora bokk yaay waaye nag maay bàjjanam ndax maag papa bu bokk ndey ak baay papam di taaw li muy lekk nekk mag ma nekk ñeenteel bi tofoom tay da daan wax ni tey fu ngeen ma jaarloo foofu laay jaar ndax rek bëgg te yàlla rek tax lu ngeen ma sant rekk loolu lay def te yàlla rek tax fa mu tëdd yàlla dàqal fii ñoom ñi di ay njaboot tamit yàlla yàlla barkeel leen yàlla guddal seeni fan te may leen man soor na bu ngeen laajee ci moom daan ci sawar ndax eh, yàlla defoon na muy xale waaye kilifa la ndax fa mu bokk moo tax ndax eh, baax na yaru na bari na kersa xam na ñooy kan ndax mënoon na ni tey sama maam la ñu waaye bàjjan rek la ni wooye ba si jibeeg ñëpp kon nag Alassane dañ koy ñaanal yàlla na yàlla jàppale ta yàlla wéral cëram yàlla guddal fanam ndax fii yàlla lu mu dogal rek loolu mooy am defe naa am na fi ñaata at mais lu rafet rek moo si am tey lu rafet rek moo si am ëllëg dund àdduna bu jeexul lépp a ngi si biir dunda te yàlla ni mooy am foog day am te yàlla rek tax waaye yàlla bu muy dee. Laay Moxtaar maa leen ziaraat yéen ñëpp waaw di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni man la Baara Ndiaye comprendre nga dëkk fii ni nii Cambérène dëkk ci koñ bi dëkk ak Mansour Thiaw moom mi nga xamante ni mooy suñu lépp. waaw depuis temps booy ba léegi ñu nekk fek moom nekk bu rafet nekk bu rafet nag mooy lan ñun ay booyran xamuñu lu bëri daan dem di ko fekk saala mu nuy conseil di ñu wax ci àddina xamal ñu ci àddina tamit lu bëri loo xamante ni nii xamuñu ko woon parce que nit mën na la bañ a yëkkati alalam jox la ko sax mais xamal bi nay xamal àddina loolu noonu bu ko xeeb bi tamit ñu nekk si koñ bi lu ñu mos a xewle dañuy ñëw si moom comprendre nga ñëw wax suñu soxla mu conseillé na si dem ci ak dooleem waaw seetaanu nu benn yoon quoi de bu ko neexoon ñu xool si loolu lépp quoi lu rafet la doon def si koñ ba léegi nii noonu la fa demee. ba gannaaw bu ma santee yàlla teg si naa ah, Limaamu ak njabootam maa ngi leen di sant yéen ñoom ñëpp axlu bayti bi yëpp bàyyiwuma kenn Mansour nag tey moo aye maa ngi koy sant di ko gërëm Mansour li ma defal man mi bokk yaayam ndey ak baay defalu ko sax yaayam yaayam ma ko jur li ma li may defal moom du ko defal Mansour baax na bëgg na ma. yërëm na ma mën sa bi mu fi nekkee lépp moom la xam nga El Hadj war naa mën a joxe dépense papa ji war naa mën a joxe dépense lépp mañ soor la ba nii su ma fa duggee amul lu ma dul defal maa ngi koy sant di ko gërëm nag waaw di ko gërëm bu baax a baax a baax xam-xam bi muy sàkku yàlla na ko sunu borom ak maamam gën a dolli mu gën a koy man daal sama xol dafa sedda bu mënuma wax waaw maa ngi leen di maa ngi koy sant di ko gërëm di gërëm tamit yaayam na bu ko neexoon ba mu ma ko yoree ba mu nekkee xale ba tey bu manee mu nangu doomam waan ba léegi lu ma waxul si Mansour rek Mansour Alassane Ndiaye waxu ko di ko sant nag di ko gërëm di sant sama dëkkandoo yii waaw ndax lépp moom la bi mu nekkee fii jotuma si sax ndax sama dëkkandoo yii jotuma si benn yoon ndax ñoom bëgg gën ko bëgg nag lan mu am si maamam rek yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp. salaamaaleykum laay maxtaar ginnaaw ba nu sante yàlla jullit ci maam Baye Laay alayhi salaatu wa salaam ñoo ngi sant yàlla bu baax bi nu mayee wér ak tal ak fekke ah, li ñuy def nii nag lu nu tële la waaye duñ ko tële mukk ci alasaan ak seeni sëñ Mansoor lay Maxtaar ku neex a dëkkal ku baax ku yiw ku sell macha allah yaayam ji li mu wax ci moom ah lu ko raw lay maxtar la bëggoon a wax xëy na tey xol yee tooy waaye sëñ Mansoor barke maam Baay Laay lu waaye di wax ci yow rek am na lu mu des am na lu mu bàyyi yàlla nag moo fi dul bàyyi kenn moo leen jël yàlla na leen yàlla dolli ay leer fa ñu ne ñun ñi fi des nag yàlla nañ fi yàlla yàggal man nag man la yàlla dénk gum ëtt bi may ñaan yàlla suñu borom yàlla naa fi yàgg ànd feeg ñëpp man maay Mandione Gaye di doomu Mor Gaye ak Astou Ndiaye yàlla def ñi fi nekk ñëpp samay doom la nu ma ànd ak ñoom ñu nekk xale yi neex a jur muy ëtt bi yëpp daanaka ku ma nekkul sa papa sa nijaay laa mais boo ñëwee fii mënoo xam loolu donc ñëpp ay moroom la ñu nekk benn ak sama njaboot ñu nekk fi si jàmm ak salaam yal nañu yàlla boole doon lu ñu ay xéewal yu bari ak ñoom. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ah sunu laajee de si sanga bi Alassane sawar nañ cee wax bu baax a baax man de manewuma lii sax waaye tey ban nu waxee man dama volontaire ni damay wax. ndax daf ma defal la nga xamante ni dafa sori sama xol xoola sanga bu oyof nga am doom yëgoo lu dul mu ñëw sa buntu néeg koŋ-koŋ nga ni ka bisimila duggul ma jug dem ba fekk si ka mu ànd ak man ba ca néeg ba ñëw fekk ba ca liir ba ñaanal ka demal lool sanga bu oyof rek moo ko man ku oyof rek moo ko man bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi mina sheytaani rajim la hawla wala quwata illa billahi al aliyyil gannaaw bu nu sant yàlla julli seydina limaamu sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nu nuyu di leen ziar bu baax a baax man la Abdoulaye mbay loo di doomu imam Seydi Lo ah, di wax si Mansour Thiaw dëkkandoo bu am solo la parce que ñun ñoo dëkk fii mais vraiment ku baax la ku yaatu la ku bëgg nit la parce que nit moom soo oyofee rek bo da ngay doon nit ku nit ku baax daal vraiment Mansour daal mu ñu si wax daara lu dul sanga bu baax la sanga bu baax a baax a baax ku neex a dëkkal la. di wax lu gàtte rek si Mansour bi nga xam ni moo tax tey lii Mansour li tax ma ni mun naa ko jur moom ak sama taaw benn at ñaari at lañu ñu rawantee gën kaa bari bu motee ñetti at mais bi mu ñëwee fii si kër gi ñu ñëwoon ci waajuram bu jigéen mais waajuram bu jigéen boroom këram moo taxoon mu ñëw fi ndax boroom këram mooy kilifa kër gi si départ bi sax mbaboor bi yëpp tey lii pap sumba ba angoy moom moo tax muy njin ja mu nekkoon sama mag bu baax a baax a baax a baax bu baax du xew bee tax li may wax njabootam ki gën a ndaw sax boo ko laajee si mën na wax xam na lool ndax baax mënul weesu nga woo nit tëdd ndi nga man sama tëraay bii li ma fi jug sama njaboot nga dénk naa la wax ko ñetti yoon kooku bu bëgguloon du ma wax lool te nag sama mag la ndax ñoo bokk maam te jóge Taïba njaay ñëw fii muy suñu waajur yi ñu juddoo fii Mansoor njin ja moomu am nekk yaay si Mansoor moo ko dalaloon fii bisimilahi rahmaani rahim onze bilahi mustani rajim laa laa qawta illaa bil azim bu dee affaire Mansour Thiaw rek li ngeen may laaj Mansour ku ma laaj si moom sawar naa si lool pour wax si ndax dañu dëkkaale woon fii si biir kër gi yàgga fi lool néeg bii la njëkkoon dëkk ma jàkkaarloog moom mosul am ak man benn problème lu dul jàmm ak salaam te maa ngi yor sama njaboot si biir kër gi jàmm rek la séq ak man jàmm laa ko xamal jàmm la fi nekk ba keroog muy dem jàmm la fi bàyyi baax na alalam bokk na ak doomu aadama yi su ma feebaree sama tànk bii ba ma feebaree mooy njëkk ñëw fekk ma sama néeg te maa ngi yore samay doom mais lan mooy metti sa tànk ba sama tànk damaa xëy rek mu newi dafa jox xaalis ni ma boo xëyee nga dem nga faju ko ndey mboj mi doomam feebar daf ko jox xaalis muy dem ba pharmacie mu dem di fa faji tànkam bi yóbbu ko ak xaalis la ko jox boo demee ordonnance bu nu ko bindal nanga ko ko jëndal mënoon a nekk fii nag tàntaam jii la fi nekkal mooy magu yaayam mënoon na ni man wujju ya wujju tàntaam laa rek lu muy def tàntaam la koy defal lu muy wax tàntaam la koy ma maasu nëbbu ma daraam soxlaam sax su ko amee dina fekk ma sama néeg bee waxtaan kaak man te tàntaam ji du ko xam. liñ doon dund moom fii oyof gi mu oyof ba ci sama waa kër yi ñoom ñëpp a taxaw gisoo xale yi ñëpp sol yére ni dañuy wax man leen yéen ñëpp doo leen wax bàyyi leen ñun mag ñi nu wax ñu wax ñu wax sanga bi liñ koy ñaanal. yàlla na ka yàlla may fan mu sud ay baay baayam fan oyof na xale mën na ko yendal si si si si ëtt bi wallaaxi xale man na ko yendal si ëtt bi ba ci sama waakar ñu ndaw ñi bàyyiwul kenn beneen xale bu mu gisin noonu lu ma gën neex ci moom mooy oyofte waaw oyof na lool macha allah amul xale amul mag te bu nee baax na ëmb na lépp bu nee baax rek amoon na lépp Mansour ku neex a dëkkal wax dëgg yàlla biñ fi dëkkee ba léegi ah lu baax lañ xam ci moom oyof bëgg ñëpp nag parce que loolu mooy àdduna parce que sang nga oyof bi nga war a doon doon nga ko day tax nit ñëpp ñeme la. te guddal fanam wéral cëram barkeel ka xol bu rafet bi mu am yàlla gën ko ko yokkal gën ka ko dollil ne woon naa ko kaala gi ci sëriñ Ablaye jomb la jombul sa morom yàlla na la dal yàlla jëfi suñu borom yàlla rek moo xam tey fi tey lu yàlla na ma ci diine maamam ji rek ci ku mu mën a doon loola pare na waaw yàlla yàlla dolli ci sutura pap tam doom ju baax la doom ju baax la man daal sama doom yi zéro faute ndax doom su la mayee cër may la teggeen defal na la lépp te am nañ ko ci ñun am nañ ko ci ñoom may nañ ñu cër may nañ ñu teggin moo ëpp lépp moo ëpp lépp jërëjëf ñu ngi leen sant di leen gërëm yàlla na dund di ko féete ay ati ati ati at ci barke maam Baay laay war may maam Seydi Mansour mënu ma wax ci moom te du ma jooy ndax dafa sori ci say naagay moo tax mënu ma wax ci moom te du ma jooy waaw jërëjëf. at yu bëri bari bëri bari bëri presque après école. bi mu jugee ak fële daayam nijaayam que lépp fii la ko man Mansoor nekkoon nit ka nga xam ni du ma ko tayal di ko wax tey nag dama kontaan ndax si télé bi ma koy wax parce que man magum jëmm laa mun naa ko jur sëriñ du tax ma waxal ko lu man Mansoor dama gis si qualité si moom benn qualité ba nga xam ni gisuguma ko ci kenn kenn wax naa ko keroog ci man bi Mansoor sëriñ Ablaye mooy baayam loolu doy na lu ne. yàlla dénkoon ko mu toog fii kenn xatal ko mu nekk si jàmm ak waa kër gi ak rakkam yi si biir kër gi muy ñoom papa ji El Hadj Ndiaye ñoom ñëpp ak ñun presque lépp lu mu doon def ba la ma doon maa bii ba la ma doon egg si fii ñu nekk tey si suuf fi la koy defee ba koroog mu yéeg si kaw bi ñu doon liggéey fii maa ngi moom du ma ko fàttaliku fii ñoo fi doon toog maçon yi tabax ñu ataay di waxtaan mu naan ma père lii lu ma xam di ñaan di wax ba tey mais ma gis en tant que jeune man soor jeunesse ku ne xam nag man Mansour du mooyu lépp wallaay asi mun loolu ñeme naa jël kaamir ndax dama ko dund ak moom te booba jeune la lu ne mën na wàcc si moom mais lépp daf ko dund ci àdduna rek di wax lu baax di def lu baax di jëf lu baax di ko digle li muy jëf loolu lay digle boo wéeteeg moom di la lay wax di mënul àgg ci kilifa sax dina ma woo man ni ma père diw boo waxtaanoo moom nii nii lu mu jàppoon mu bàyyi ko si lii ak lii ñii de boo waxtaan ñoom nii moom bu sa di dajale rek di di mel ni ku yor pusoom daal fu mu gis mu xottee rek mu daw ñaw kon saa boole nañu teraanga boo xam ne non man Ama Dème mun ma ko fàtte déedéet man mun maa fàtte kii ku yëkkati par rapport moyen am lijjantiwul ni man xëy naa yoon gañe naa cinq cent mille musu ko lijjanti loolu duma wàccee ñëw mu soxla ma ma war ko yóbbu kaas ba fii rek kaas ba kaas ba laa wax de mu yóbbu ko kaas ba ñëwaat rek sama diggante ak yàlla dina yëkkati vingt mille wala mu yëkkati trente mille wala mu yëkkati xaalis bu bëri nga baaleel ma ko ba damay tiit te kaas ba fii rek laa ko yóbbu kaas nga xam ne nag ay rakkam lañu di sanu meññeef ñun ndax ñooy sunu njaboot ànd ak moom toppa si moom te yàlla tax ndax dañuy wax ni ku àndul ak sa mbokk ànd ak jàmbur te li ñuy def duñ ci jële defet ndam rek lan si am ndax tey fi tey ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi wëlbatikuwaat mu jokk bokkaat ci yonti yàlla isaa lu gën a neex lu gën a neex tey ñoom moo leen dal yàlla na leen yàlla gën a sàmm yàlla gën leen jubaade yàlla gën leen déggaat na waaye ñun day laay amuñu dara lu ñuy wax si moom lu may di ko war may moo ma léegi kon damay dem bay wàññeeku kon ba mu ñëwee dama ne ko dama lay xaar ba nga ñëw. billaay wallaay war may maam Seydi gëm a jëm di maamam di wuy juru bàyyi am yàlla gën a jàppale. lu wax ci moom rek am na des waaw di yàlla yàlla may ko fan gudd ak wér yàlla gën yokk xam-xam yàlla gën a yokk xam-xamam ku baax la nag dëkkandoo nañ fi dëkk bu rafet bu rafet a rafet a rafet vraiment macha allah macha allah rek lañ koy wax. ñaan yàlla yàlla gën a yokk a xam-xamam yokk ko fan bi bu baax a baax ak lu bayti bi yëpp nag vraiment koo gis si sangay rek koo si mën a gis rek ñoom ñëppayam daa naal nu Mansour mel daal noonu la sanga yépp mel waaw ku baax la daal loolu daal lan mun mun mun ñu weesu laneen lu nit ku baax la ku oyof la ku neex a dëkkal la man de moo tax mu neex ma oyof tey moo tax mu neex ma parce que bu ko neexoon mun na jaay leneen mais defu ko wàcc na boppam maasik ñëpp amul xale amul ndaw waaw di ñaan yàlla rek yàlla na nu yàlla defal jàmm dool nu xéewal dama waroon njëkk si sang bi sax Seydina Mouhamadou Makhtar Laye waaw maa ngi jégalu bu baax nag di ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam ak kanam kan diit bu baax a baax macha allah ci barke sang yëpp ay Makhtar Laye jërë ngeen jëf laay Makhtar. man soo dëkk bu rafet Alassane man fi ma la def man dafa sore sori sori ba sama yaay wérul de moom laa waroon seeti. El Hadj Ndiaye daf ma woo ma yebbi lépp toog ndax lan dañuy ut témoignage ci yow damay bàyyi Alassane lu ma jàppoon damay toog wax ko ndax ba bàyyi woon nga sa te yëpp ndax man Alassane su ma feebaraan barke maam Seydi balaa maa jóg ci lal sa ñaan gu sell gi ëf gi may ëf ci kaw lal bi moo ma yee sama doom ñu opéré sama doom ma ñëw Alassane dañuy opéré sama doom tey mu ne ma xadi jël loxoom bu tedd bi teg ma demal nga toog te jox ko ndox mi incha allahu rabbi lépp day paase Alassane man xeebalu ma la sa dara ndax dama la def fu sori barke bàyyi laay dama la def fu soree sori maa ngi jéggalu nag li nu gëj a gisee lool Alassane waaye sa bis bii nga jublu nii yàlla na la sunu borom may ndam lu baree baree bari yàlla na la sunu borom defal ndam lu kawe kawe kawe Alassane lu nu war a wax si yow bari na Alassane xeebaloo kenn yëfam lépp lu mu doon rek ekkati nga sa alal ekkati nga sa jëmm ñëw toog jëmmal loolu Alassane xeebaloo ma sama dara man de sa personnellement sama jëmm ji barke bàyyi laay ak Seydi sama xol nag li ci nekk ci yéen ci yow Alassane yàlla na ma la ko sunu borom defalal ba mu doy boo ma gisee boo ma gisul soo ma déggee ak boo ma déggul sama xol sedd na si yow démb tey doog a ñëw lépp loo jublu rek Alassane sunu borom yàlla na ko sottal. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ak say barke maam Alassane bul tiit bu ragal ndax seral nga xol yëpp ëtt bii buntu ba cat su ma la séenaan man li may yëg man rek maa ko xam dem nga ba xamoon loolu si man bu ma la séenee balaa ma laa daw si nuyu rek lu bari la bari laa yëg Alassane yàlla seede na ko xol yëpp nag tooy na barke bàyyi laay lii dama ko yàkkamti woon dama ko sawaroon barke li maamu laay su ma gënee guddal rek dina doy waar ndax xol yëpp yàlla na ko sunu borom teeral ba mu teer barke Baye Laye. macha allah damay seetaan TikTok bi dangay xool ñi nga xamante ni duñ ay laayeen sax murit sax dañ koy def euh, di ko di mu teg ay waxtaanam yu am solo ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla na ko yàlla lafal cat oyof weesuwul nga nekk sanga dan la war a fekk si mais day génn buntu këram laal basang ëtt bi ñëpp a ñëpp ñëw bool su ku tabaski. ñëpp a daw joxe yàq a booli mu nekk ñoom ba ngoon mu jug mu doon keneen mu ne am na yeneen yitte yu ma mën a doxe waaye du ko def day yëndoog koñ bi ba ëtt bi ba ngoon mu dem fatu manuma wax nag manewuma yi waaye maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale lin koy yéene ëpp na lii yàlla na ko yàlla jàppale yàlla may ko fan wu gudd ak wér ba mu sut ay fan ay ay baayam alalam nag du ko boole ken Mansour fu mu toogee ba yàgg rek sama néeg damay toog ba yàgg rek mu ñëw meer na nga fanaane maa ngi si jàmm rek mu buux ma xaalis bi day bare lool xaalis bi dinaa si faj sama soxla ba sama xol sedd te tàntaam jii du ko xam li ma koy ñaanal nag moo xam li mu bëgg si xolam bi yàlla na ko yàlla defal lii mu dëgmal di ko def yàlla na ko door si bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko si alhamdulilahi rabbil alamin moo xam lu mu bëgg si xolam bi yàlla na ko yàlla defal lu baax li ma yéy ne sama njaboot gi yey ne ko ko yàlla nañ ko bokk ak mboolem mu jullit sallallahu alayhi wa sallam lépp lu ma ko yéene te yéene ma ko sama njaboot gi yàlla na lu bon yàlla na dal si sama kaw njaboot lu baax rek laa ko mas a bëggal moom laa ko sa waxal moom laa ma seqal moom. sama taaw sax sama taaw moo ko waxee fii moo dem sama tudd doom yi presque dafay ñëw waaw si mi moom ama fayam yàlla moo koy fay nit ku wàccee boppam la bëgg a jaamu yàlla yi si mi moom amul lu ma wax si moom dem koy xeeb waaw kontaan naa si moom bu baax a baax nag ok maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar. waaw maa ngi nuyu waa Cambérène ñëpp taxaw nañ bu taxaw bu rafet waaw bu ma ñëwee ba léegi ma macha allah macha allah maa ngi kontaan si ñëpp ziar ñëpp waaw incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah suma doom bi nga xam ni mooy sama ñaareelu doom bu góor man soor ko mag bu baax muy Seydina Gaye dafa génn àdduna nit ñi demoon nañ ba yaakaar ni moom man soor ñoo maase foo leen fekk ñooy ñooy ànd muy guddi muy bëccëg ñuy nekk muy complice am si lépp li mu xam ci moom sax man xaw ma ko ci moom parce que man soo day tëju guddi woo ko ndànk ñun duñu xam da ngay yeewu rek sëy naa foo nekkoon maa ngi mën soo daan doon trois heures du matin la ma comme kër gi ak kër gi benn la mu gunge ko ndax comme dafa xawoon feebaru xam nga kooku sori woon na ci moom te amoon na ci moom confiance mu doon mu man soor ku mën a dimbale waate la ci wàllu social man soor ku mënoon joxe lekk su ma gis Mansoor lekk bàyyi kenn Mansoor loo ko may ci àll bu ko indee dina ko wax nun ko séddale ñëpp kon qualité yi Mansoor comme ni nga wax ni nañ def bref suñ fi toppee yaakaar naa te am na ñeneen ñu war a wax damay ragal ni dafay yem fii boo moytul dañuy heure wàcc dafay jot parce que Mansoor li ma xam ci moom yëpp dafa bari waxuma ngir bëgg lu neex nit ñi wala lu ko neex déedéet ndax man kilifaam laa dund moom te Mansoor musuma woon benn ñàkk fayda musuma gis si moom musuma woon benn manqué lu dul jullit moom déedéet kon lii muy def nii tey à travers les réseaux sociaux ak yooyu man day bettuma man man dama ni dafa yeex sax ndax bu yàgg ndax nekkoon na ci moom te bi mu ñëwee nit ñi xam na ni ndax Mansoor nekkuloon ku dem ay Arabie Saoudite wala ay yooyu di jàngal ne ay ati at déedéet jàng na mu ngi wax ku dégg xam ni muy wax jàng am na xam maa di yooyu maamoom ñaari maam la boole bu góorgóorlu toujours dina si réussir moo tax loolu man nekkul lu ma bett ñu ngi koy ñaanal daal yàlla sunu borom yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla may wér may ko njaboot gu barkeel yàlla may ko lu mu yore ay waajuram mu mel ni yaayam mi fi des tey ak ay rakam yi topp ci moom ndax ay yaayam li tax ma ne ay yaayam yaayam bii mu mi ko yoroon ak yaayam bee ko jur Mansoor benn la leen def pour wax la loolu mu yëkkati dara li may wax boo duggee si at bi jox ko yaayam bi xaar ba koroog muy am jox ko yaayam bële moo ko gënal. Pape bi nga xamante ni nag moom la yàlla def mu dëkk lii sax si lii. yal na ka yàlla may ndam yal na ka yàlla barkeel yal na yoonam àggate yàlla bu ko dara dox si àdduna wax naa ko sànq ma ne ko yàlla bu leen dara dox si àdduna ndax tey seen baay mënuñu bokk ak moom ndey ak baay ñu yéene suñu njaboot te duñ leen yéene amul ci àdduna amul ku la wax lool rek da lay nax ndax benn biir rek la tey ñu bokk demaguma Fanda Ndiaye Balla maa ngi yaas ñu xam ko torop nag ñu leen ñaanal yàlla dolli seen wér. seen way ju si wanag wi yàlla bàyyi ko fi wéral cëram guddal fanam ndax nit fu mu toog di xaar yàlla yàlla na ko yàlla fekk toog rek di xaar yàlla yàlla na ko fa yàlla fekk nag di barke maa di yóbbu saa mais lii daal yàlla nay ndamu ñëpp pa mi kay def ñett defee ñu ngi ni jàkk si moom yàlla nañ ko wallu wallu moroomam ak mbooloom doomu aadama yàlla xam na ni bég na yàlla yàlla jàpp si yéen allah waaw sang bi moom wax ci man avec plaisir mën naa cee wax dëgg dëgg avec plaisir mën naa cee wax waaw wax dund noonu lu mag dëgg quoi dëgg waaw mu yee ma ci àdduna defal ma lu ne ci àdduna nag boobu moom daf ma yokk fit sax ma mën a ànd ak nit ku ne ndax ku nekk chaque jour li mu doon conseil mooy ku nekk la ngay àndal moom la ku nekk la muy dund moom la maa ngi moom si nekk chaque jour mu may wax loolu mu am fitu nag ànd ak man fu ne ma nag man ànd ak moom fu mu yee ma sama àdduna mu yee ma daf ma yee lu bari lu bari lu bari lu bari ci bëgg yaay ci bëgg rakk ci nooy gérer say rakk yàlla def muy taaw may taaw chaque jour ñuy nekk mën ak moom mu may waaw mu may mu may ñax ci loolu na la ñuy gérer rek du mettee waroo daw surtout yaay du mettee waroo daw loo yorul cent francs sax bul daw di leen ñaanal yéen tim waa rajo Lou'Bess TV di wax ni yéen vraiment sagal ngeen ñun waa Cambérène surtout diine ci sagal ngeen ndax lu bari tey am na ñoo xam ne mënuñu ko fekk ci biir dëkk bi mais bu ñu taalee seen euh, télévi euh, téléphone rek waxuma télévision gis ka xam ka def ko mu à travers le monde man naa ko gis fépp kon ni commencé si directeur ba si suuf képp ko si am jaaxle yàlla na ko yàlla faj si barke guddik àjjuma ji yàlla na yàlla saafara jàngoro yi dafa leen xéewal teg leen siraatal mustaqim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërëjëf